alaikum. comme nous ngeen ko nous sommes à la fin de votre première édition avec euh, Mounir Moda deuxième design Mounir Moda lañ taxawal fii après un grand défilé réussi avec un succès riche en son et lumière riche en créatures, riche en modèles. Nous bàyyi Mounir à Mounir Mounir, ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay VIP People ñu fay. Mounir gis nañu bi mooy sa première édition en avec sa label muy deuxième m Design nga présenté une belle collection boo xamante ni doy tu as apprécié tu as réussi avec euh, innovation avec des créations yoo xamante ni doy na waar trop ñi foogoon ni que mode dafa dee Sénégal tey nga dellu en tant que jeune dellu soit mode lan mooy sa réaction après bi nga défilé ba pare. après bi ma défilé sama réaction kontaan laa def parce que bu ma gisee salle bi ñëpp euh, nekk di tàccu rek sama xol dafa féex xam naa ni kon li ma liggéey kon rafet na. Mounir en tant qu'un jeune créateur nga dagmal événement bu mel nii muy sa première édition nga waroon ko defee feneen nga sànn lu mel ni tey Radisson Blue, invité bi ay invité de marque ay ndaanaan yoo xam ne dañ leen xam ci wàllu mode tey yëg-yëg bi nga njëkk am ak ban conseil ngay dolawaat les jeunes créateurs au niveau de la mode. yëg-yëg bi ma am euh, yëg-yëg bi ma am buma gissé gisee euh, yi mag yi dama contane parce que styliste yi mag yëpp nga fi tay té ñu ñu mag ñëpp nga fi tay jeunes créateurs yi.

yakarna ni marqué nga say empreinte bokk na ci agenda culturel bokk na ci agenda de la mode tay journée 6 juillet bobu est-ce que mën nga ñuy wax yane collection nga ci présenter yane collection la ci présenter collection yi ma ci présenter bari woon na sax presque defaroon na 100 tenues mais tenues daanaka dama ko wañi pour spectacle mën am temps pour mën sétane wa parce que defoon nañu ay collection vax def nañu pantissé def nañu abakos def nañu euh, style nigérien yi def nañu bazin Veba tamit ñoy ñoy sama sponsor officiel est-ce que mën nañu un rendez-vous annuel lay le 6 juillet 2019 est-ce que 6 juillet 2020 mën nañu xaaraat mënul moo daal affaire. Euh, bien sûr Inch'Allah. Rabbi. 2020 Inch'Allah, sax y a ñuy gens VIP people Inshallah, 2020 bi ça sera 72 heures Inshallah, Rabbi. Nous suñu fi yàlla parce que nous n'avons pas les fu Nous n'avons pas les ci 2020 bi Inch'Allah, comme nous en 2020, ce sera 112 heures de la mode. Donc euh, la mode est en train de revoir ses valeurs. La mode est en train de renaître à cause de ces jeunes créateurs. Mounir Moda, on est fait avec Ibi Radisson Lo Khamantini. Ken du kon ci walu mode. Xol yi kep ku fi ñewon sa xol sedd kep ku fi ñewon contane nga, kep ku fi envie encore sañsé, am nga envie de création. Kep ku jeunes créateur aussi am nga envie def ko. Donc duñu def dara lolu diko féliciter, diko encourager, diko remercier parce que moi personnellement quand j'étais là pour voir sa collection, j'ai été ébahi pour dire vrai parce que yagna ci mode plus de 18 ans mais j'ai vu quand même plus de 5 ans kenn gisuma ci walu mode tay suñu ma gisé fi sax ñu bari nañu waa Tange lu ko waral ci li parce que dama gis ben jeune bo xamanteni il est ambitieux il est déterminé il a montré quelque chose Munir, nous te souhaitons bonne chance lan ngay terminer. Euh, merci tamit aussi lu ñuy terminer tamit aussi di euh, di euh, gëreum suñu partenaire yi PB cosmétique ak Touba Mondial cosmétique aussi. ñu ngi gëreum comme aussi Bassin Veba muy suñu sponsor officiel Merci beaucoup. Donc, c'était avec Mounir Moda pour la première édition avec euh, deuxième design ici au Radisson Blue. La soirée était belle, la fête était belle. C'est toujours comme ça sur VIP People. Ne la ratez surtout pas. Merci.